Sénégal suba si suñ dee ndékki daañu waxtaan suñu devenir du cinéma xale yi lan faiblesse la ñu war redresser ak yooyu yëpp lii lañ leen indiloon tey seen xibaaru fespako ba tey dinañ wéy di leen di indil ay xibaar ba tey ci mbir moomule euh, ci wàllu projection ci wàllu défilé de mode ak ci yeneen yoo xamante ne dañ leen ko indil di leen di jox rek daje ci beneen euh, donc rendez ci journal FESPACO bi di jaajëfal Pape Gora Gueye mi nekk ci caméra bi di leen di jaajëfal yéen tamit mbokku téléspectateurs yi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci plateau l'invité de la mi-journée tey ñu ngi am mbégte di dalal euh, madame Dia Mariama Sarr madame Dia ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Edouard di kontaan di ñëw fii ci Walfadjri vraiment di la feddali colère encore. par mm-hmm. rapport ak invitation waaw ñu ngi lay gërëm bu baax si yow tamit li nga ñëw wuy si sunu invitation. Mm. Euh, yow conseillère municipal nga nekk itam conseillère départemental ca Tëngéej nga nekk itam membre convergence des cadre républicain euh, bokk ci cellule communication benn bokk yaakaar nga bokk si ñi taxawal plateforme bi di euh, femme cadre de Benno et de la majorité mm. actualité bi nag mooy élection présidentielle yi. li si des euh, matul sax euh, at euh, jamono ji nag candidature yi bëri na ku si nekk yaa ngi déclaré sa candidature en tout cas yéen ca mouvance présidentielle bi est-ce que yéen ngi xalaat seen candidat ndaxte tey ki fi nekk président di président Macky Sall moom amatul droit def troisième mandat dafa war a dem est-ce que loolu yéen a ngi ciy liggéey. déjà maa ngi nuyoo di sant sama waajur di nuyu sama xalif général yi généraux yi fi nekk ñoom ñëpp sëñ Babacar Mansour yàlla delloo ko sagoom Euh, magum kër comme je l'ai dit xalif général des Mourides et ak yeneen xalif généraux yëpp di def clin d'œil di ñaanal sama mbokk laayeen yi di leen remercier ci appel bi parce que xam nañ ne ñaan yi jóg na ak euh, ñëpp bépp xalif généraux euh, xam nga lu ma lu ma am lu may lu ma lu ma lu ma jaaxal constitution dafa bind le mandat est de cinq ans point nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs pourquoi ñuy jéem a jaxase sénégalais yi. est-ce que du deuxième partie boobu la ñu war a gën a jàpp. non non non non kenn warul mën a def. non non non non non bu ñu ko defee rek def erreur parce que président bindul constitution bi. mais pour constitution français la ah. mooy bu dee français dañ ko tekki ci olof te dinañ ko tekki ci olof. parce que fi mu nekk nii plus que jamais def ñaari mandat yu teg lu ëpp ñaari mandat yu teg dañ ne mandat bi juróomi at la hmm. kenn mënul def lu ëpp ñaari juróomi at hmm. bien sûr que defoon na sept ans mais sept ans boobu c'est-à-dire boobu daal perte et profit. non du perte et profit te dañ di responsabilité. da koo jiite gën ko wante li tax duñ ko comptabiliser si biir boobu la référendum bi am bi référendum bi amee c'est pas rétroactif loolu xam ngeen ko kon sept yooyu bokk. li ñu xam mooy dafa ñaari mandat na leer dafa njëkk def sept moo fi joxoon métaphore ñaari rakk déglu ma rek moo ko fi joxe woon ma rek ñu wax ko ba mu leer nañ nañ nañ ñëpp di ko dégg. dafa ni dañu ne conseil ci constitution bi le mandat est de cinq ans point nul ne peut faire plus de deux mandats pourquoi ngeen def constat jafandou si nul ne peut faire plus de deux mandats euh, consécutifs lu tax alors que le mandat est de cinq ans mu def benn sept bokkul cinq ans bi mu def benn yoon. mais beneen cinq ans bi dafay dem ba deux mille vingt deux mille dafa am lettre am esprit. <laughs> li nga wax ne lettre bi la mais l' esprit. lettre bi nag man fa laay taxaw nag. parce que moo ko ko may ñu fii lu ëpp deux mandats. te président lettre ko ko may lettre boobu ñu bind noir sur blanc à travers le monde Google foo dugg di nga gis vingt 27 moo ko wax. pourquoi ñuy nax sénégalais yi di dugal seen bopp li ci nekkul. léegi moom li mu waxoon nag ñaata yoon la ne moom. Ah, def na ñaari mandat day dem. woo nga ma fa ma neex. Hmm. xam nga lu tax. ba mu koy wax ba mu mënoon tekki éthique de conviction mooy aqulaay taalaam xamoon na ni mënul def. may ma rek may ma rek muy conviction éthique de conviction. Hmm. mooy ci aqulaay taalaam. wante. lan moo changé wante éthique de responsabilité akkulaay taalaam ci fi mu war a jëmee Sénégal ak lu mu war a Sénégal ndax xam nga lan moo tax. ñii di jóg nii ku nekk nii di wax ay élément de langage ah? man xanaa kon ñun dañuy dañuy may seen moom moo wax fépp ci monde bi nii def na ñaari mandat day dem yéen ngeen bëgg président de fi mu nekk nii bu deful deuxième candidature am boobu nekk noonu noonu noonu taxaw noonu responsabilité sénégalais yëpp moo ko gàddu si mbaggam bi te du ko attan moo tax ñun plateforme femme cadre Benno Bokk Yaakaar et de la majorité présidentielle bu mu recevoir oon ñoo koy interpeller bu mu trahir sénégalais yi ndax ñun ñoo ko soxlo xëy na am na ñu ko soxlawul ñu jóge leneen di saaga gor ñi di xas xalif généraux yi di saaga waate di tamaate di dugg ci biir jàkka yi di taal ku wax ñu wax la lu bon créer seen ay saageur équipe saageur groupe saageur ah ñooñu président arrangé wu leen. ni ci opposition wan ma wax ma kan mooy saaga ñun di xalif généraux yi ak nit ñu baax ñi ñun ci ñun amul. amu fi ñun dañ leen jox seen wàccuwaay ñun dañ leen jox seen wàccuwaay opposition lañ bokk kay léegi opposition faux compte mënul am waaye man dugjuma si faux compte ba ñu duggee nag ci réseau ya ñoom ca boppam di nar di sos di di ruube ci biir réseau ya lañ fi gis lii te li ñuy wax ñoo ko def ndax ajjuma bi muy dem Touba dem di fa julli ñuy yuuxu turam si biir jumaa ja te xalif ba ne fa jomm jommaaral lu musul am Touba am fa nga war a xam ni xotti ma war fa daa xotti war ma daa xotti war ma. dañu bëgg jaxase Ousmane xam naa kon ñun ñoo ko yóbbu foofu comme ni ñu ko yóbboo ci salon de massage ba kon ñun la. kon ñun la c'était nous xam naa ñun ñoo dem jaxase taal seen seen champs yi nekkoon foofu xam naa ñun ñun ñun ñoo dem piller boutique yi nekkoon foofu xam naa ñun ñun ñoo doon filmer di taxaw si ginnaaw policiers yi naan jeexal nañu ay armement jeexal nañu ay ay ay ay ay ay ay kii am na mu tudd grenade xale yi attaqué nañu dóor nañ daw nañ xam naa loolu yëpp ñun la ah man dama wax rek ah? dama wax rek ndax ñun la parce que c'était pas nous. Ah, a tere ma ñun ñu fonk maison religieuse. meeting bu amoon kay xam nga lu tax ma wax la pourquoi meeting di am bu ñu la teree da baax. gis nga bopp bu bëggee ñuy tere meeting Sénégal gis nga bopp bu bëggee jëriñ nopp ya cay sax day dégg. gis nga bëgg nguur obsession boobu nekk ci bëgg nguur kooku kut ko kut tey ma jiite leen moo fi am gis nga nit da ngay jox cër kilifa yi ñu kilifaal la président Macky Sall bi mu ñëwee maison religieuse yëpp la defanteel lu baax. defaral leen seen saa seen seen seen salon dakk yi dugganteeg ñoom di saafanteeg ñoom d'ailleurs le 28 mars bi ngay wax noonu bu dee woon chef religieux yi Sénégal heure bi kenn dootu ko waxati. waaye dañ koo ñaan damm loxoom ñoo sauvé seen nguur. moo damm loxoom. Hmm? mu maye njëkk mars 2021. mu maye njëkk kilifa diine yi ñoo sauvé seen nguur mënoon nañu defanteeg ñoom sauvé nguur ñun nguur gi n'était pas en risque parce que l'État reste l'État l'État est souverain. le pouvoir est presque dans la rue non. maa ni dans la rue. da hmm. gisoo leen pale gisoo leen fen mën nañ leen rek la bañ na koroj defante ba kay mooy doy waar waaye dans ce cas président du woon génn palais te nañu rek la li ñu rek la waaye joxe njekk moo indi Sénégal ba fii ñi kañaanoon nag tey ñooñu nag la ñu wëlbatik nag ñoom jox leen seen seen seen seen toroxal ñoom ba su jot ñu saaga fi waate wax fi lu bon yoon ni ñuy saaga kan nga gis mu génn euh, décrier li am kan nga gis mu génn ne li fi am ñaaw na. kan moo ko wax. lan moo kan moo fa am lu fi amul gis nga ko gis naa ko bu ñuy saagalee chef religieux magistrature ñu saaga police ñu saaga ni ñu saaga magi moom lépp ñu saaga waaye ak am chance gis nga li barikati Macky Sall laay wax gis nga barke dem moo Ndiaye bi ñu ko convoqué. te mu naan dañu dugg si biir Ousmane Sonko laay wax parce gis ngeen ko yéen ñëpp gis ngeen ko keroog bi ñu ko dugalee si si tunnel ba xamul ne dañ kaa sauvé na sant Macky sàll mi nga xamante ne bés bu jot bu xëyee dafay bëgg mu wér cocc wér kéñ dara du ko jot dara du ko fof ba ñu dem ba 2024 mu wan ko nu mu ko mënee ñu liñ ko sauvé moom xam na ko ñëw toj vitre otom ndax moom ñi muy àndal bés bu jot ñu suul dara ci moom ndax bañ ko moom ay noonu mi ngi si biir te xam na ko sax am na ko sax. Mhm. moo ko gën a xam il en est ah, conscient. il en conscient ñoom ñëpp Pastef waa Yewwi ak ñoom ñëpp gis nga ñu ngi lekkante ku nekk ma nga naan man damay nekk président. Mm. ku nekk ña ngay lekkante seen biir mosuñu ànd loolu seen pootu biir néeg la yéen a seen biir néeg boobu nag moo leen yóbbu fii ñu dem te amu si droit forcé wuñu dañ ci am droit te président Macky Sall il est question mu bañ présenté xam nga lan moo tax góor nañ leen góor ñëpp xas nañ leen góor ñëpp ñuux lañ leen si ruq ba sañuñu saqat sañuñu ana gor ñi fi nekk kenn sañatul wax. nit wax ñi jàng ñi ku fi wax ñu saaga la. parce que ñoom pensée unique lañu am déjà. pensée unique la ñu am ku àndul ak ñoom ñu saaga la xas la wax la lu bon say mbokk nag bañ ku la weer wala ku la toroxal moo tax ñenn ñi dem toog jàpp seen ñàmbur du dal président Macky Sall xam nga defoon nañ ko coup bi defoon nañ ko ak président Ablaye Wade bii du jàll bii du jàll. ça ne passera gis nga Sonko bi mu koy wax le président dafa am troisième am droit am troisième mandat dégg dégg nga kii nu mu tudd Barthélémy Diaz génn ci télé bi wax ne moom dafa am droit troisième mandat Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz ma ne ñoo ko wax parce que xam nañu dëgg valeur président kàddoom dafa am du may nopp euh, waaye nag ay opposant lañu nag ay opposant lañu nag te ñu am posture ñu am posture te ñu respecté leen tamit moo tax ñu jox leen seen ay waay waaye yàlla da leen nattu parce que ñoo waxal seen bopp ñoo weer seen bopp. constitution dañ ne nag ku dee ci marché ba. yaa tàgge sa bopp constitution bi tënkul opposant constitution ki mu tënk. mooy tout sénégalais. waaw yow sax bu la neexee nga ne. rawatina président yow sax bu la neexee nga ne candidat rawatina président ma ne. président Macky Sall laa wax ñaari yoon wala ñett wala juróomi yoon. président Macky Sall laa wax actuellement bu demee haute trahison lay def population sénégalaise bi amul droit bi bañ a présenté wu. bu ko conseil constitutionnel validé dëkk bu tàkk arrangé wul kenn rawatina la jigéen bàyyi leen dëkk bu tàkk kii dara du fi tàkk troisième mandat réew ñu mu taal bëri na fii dara du fi tàkk xam nga tax dara du fi tàkk xam nga tamit il faut que ñu bàyyi naan maam yu baax yi fi nekkoon ak et tout ça da nga ma bëgg déglu ma baax ma tax dara du tàkk taal Sénégal lan moo leen yóbbu ñoom troisième mandat bi nga bëgg forcer président Macky Sall wala moom bu bëgg ko forcer boppam loolu mën na taal réew aussi lan moo leen yóbbu assemblée bañ naan euh, mën na ñoog am na ñoog ñoo jiiteeg ñoo jiiteetul te constitution bii la ah bu dul loo wax leen ma ban constitution ma leen valide moo validé loolu fa la ñu déposé fa la leen valider ñu génn dem voté ji nañ defaat même chose dañuy dem proposé candidature bi bu passé ñu jël suñu parrainage def ko suñu déposé suñu parrainage ma ne takku nañu ba dëgër plateforme des femmes cadres benn bokk yaakaar de la majorité présidentielle ñun jigéen ñi ñoo porté affaire non amul ay ñun waxuñu ay ñun waxu élection la wax gën a woote jàmm mais ma bu baax xam nga ñun déggoo ñu ne ku dee sa yaay juraat déggoo ñu wax ko de ndax ñun dañoo respecté doom aadama. ah seen ministre ministre de la jeunesse wax na lu gën a. ma ni déggoo ñu ne ku dee sa yaay juraat. déggoo ko ma Ndour lan la wax. lan la wax. diw bu deewee ñu doon ay jabaram. waaw moom moo wax jigéen ñi moom moo wax jigéen ñi. ne seen bu seen bu ngeen dee xale yi ànd ak moom di manifester nga xam xamante dama leen di interpeller ndax gisu leen doomam nekk ci biti gisu leen jabaram nekk ci biti gisu leen sëram nekk ci biti moom mooy ñeneen doomu ñeneen lay jël naan mortel combat ñëw leen àtte ma na dem ñu dafa testé ADN bi na dem wuyu ji jugement puisque dafa ne dafay bëgg bokk su bokkee jàmm ñu yëkkati ko ba biir weex dóor ci suuf ñoo ko mën 60 pour cent électorat ñun la ñuy voteel président Macky Sall dafa am yar dafa am diine dafa am liggéey li muy def mi ngi ne feng weng si bëtu nit 17 millions sénégalais yi Macky rek moo si compétent waxuma la kon moom rek moo si compétent parce que ñun suñuy nawle lañ nekkal waaye moment T bi forcé wuñ ko daf ci am droit te da ciy jàll moment T bi c'est lui c'est lui mooy suñu plan A B C ba alpha B jeex. maanaam haute trahison daal bëgg mu def waaw haute trahison moom su présenté wu nekk candidat ndax cinq ans la ci am ma ni cinq ans boobu mu am cinq ans deuxième fois bi su ko defalulee bàyyi fii sénégalais xale boo xam ne dafa yore allumette bëgg taal euh, gaz bëgg taal euh, pétrole ruubee waa dëkk bi saaga ndey waa waa waa waa waa naka euh, euh, chef religieux yi respecté wul kenn journaliste yi yéen ñi sañu leen ko teg di ko laaj du ngeen ko laaj day ñëw ah, woone ñëw leen woo ñëw leen su ngeen paree ngeen dellu da ngeen ko ragal yéen ñëpp ko ragal muy wax lu ko neex am na nag ñu nga xam ne nag dañoo am fulla vous en faites partie ak ñeneen ak ñeneen du ñëpp du ñëpp mais mosu leen ko defal point de presse di ko poser muy répondre amul sañu leen ko ah, xalaatu leen ko xalaatu leen ko woo leen ko convoqué leen ko man mosuma ko gis te maa ngi si terrain politique bi yéen seen bopp dangeen ko ragal parce que journaliste bu dugg ci moom ci gàddam boobu boolaa xale yi ñu saaga leen lynché lynché leen de sorte que ñëpp dañ ko bëgg a dellu ginnaaw ñëpp lay ragal ñun nag ragaluñ ko waa defal nag yéen Sénégal yi wax nga marabu yi wax nga a jël daal jaxase leen ak moom moo jaxase boppam parce que moo tëggal boppam moo tàcc boppam moo feccal boppam lépp moom la il est devant tout ba muy dem Kër Massar di wax li muy wax daf ko wax seen nopp yi ngeen dégg ko ñu pare ñu ne déet na waay kooku Touré naka avocat ba nga dem ba Touré génn fii ne projet bi seen article 5 boo bëggee dinaa la ko yónnee yore naa ko après naa la ko yónnee projet bi mooy ray maison religieuse yi fi nekk ray tarixa ah. yi ah ray tarixa yi kenn dootul jaamooti ay nit ak ay du question de jaamu nit ñun jom mën nañu jaamu nit li muy wax moom xam na ko gis du ñun ñëpp sénégalais yëpp la ko waxal sénégalais yëpp la ko waxal waaye kaay ma wax la benn affaire suñu sëriñ sii nga xamante ni ba ñuy def décentralisation kenn defu ko ku si mel ni Maodo nga xam ne bisu ma euh, ma mawlud bu jotee Sénégal ñëppay mawlud Afrique ñëppay mawlud monde bi ñëppay mawlud ñooñu ba ñuy def médiation di daw ci dëkk yi di jàng di jël seeni ay téere di teg taalibe yi di leen topp te waxuñu kenn kaay fekkewu ko woon moom ak ay moromam fekkewuñ ko woon te loolu du fi mës a dañ defuñu leen yàlla suñuy wasila lañu. ñu leen di topp nag. fièrement nag pourtant ngeen gis seen si loolu. moom dafa wax wax ju dafa wax wax ju bon bu nga xamante ni day tas dëkk dafay toj société. oh mais ça dañ koy mettre à nu parce que waxul wax ju rafet. ñun dañ ñoo fekk dañ fi fekk église. dañ fi fekk euh, religion athée dañ fi fekk bouddhisme dañ fi fekk musul lislaam lépp lañ fi fekk ma ni du politique bii bëgg nguuram gii nga xam ne man maa ngi koy woowee le pantin maléfique ndax dañ koy ruube di ko def te projet bi du moom c'est au-delà moom loolu nag lu mu baax dañ koy ngeer président Macky Sall fii lay présenté candidat par force ndax ñun dañ ko soxla hmm. dañ ko soxla moom bu ko soxlawul ak ñi muy àndal ñun soxla nañ ko ndax yaru na teey na dal na xam na boppam suñu njaboot du ci dem parce que ñun dañuy téye suñu njaboot ku bàyyi sa njaboot mu dem ànd ak moom mu dugal ko si naka su dul noonu def yëf seytaane ba li ko arrivé yow yaay xam xam nga lu tax xam nga lan moo tax fii tàkk du fi am urne moo ñuy atte urne moo ñuy atte ko yóbbu assemblée nee na ba mu naan ay majorité benn ngeen ma rawale ak ñaar mu jigi mu naan groupe wàllu yeewi di jéem a ruube nit ñi ah, ah mooy waxaat sénégalais yi dinañ tànn ku fi teyewul sa doom nag ba mu reylu la yaa koy yëg ndax 14 ya fa dee gisaguñ leen ña ñu amputé demu leen seeti taxawul fa ñu taxawoon taxawul seen ginnaaw njaboot ndax ki la naan demal sàcc demal toj demal yàq kooku du nit ku baax du njiit bu baax te war na xalaat boppam nag bis bu demoon tey ba tey réew mi lii di dal du nekk lu nga xam ne du lu rafet xale boo leen jiitee ay nit boo yaakaaree ci ñoom ak mag ñi ànd ak moom nañ ko wax dëgg Sénégal Macky Sall ba mu nekk ci bi moo ne woon te du yàq tàkk te Wade bu dëgëree bopp dina jëgal jël deux cent mille personnes ñu jubali palais waaye ba mu xamee ne la mu wax du ah. waxu ba mu xamee la mu wax du waxu am na fulla dafa ni sadd dugg bi Sénégal uti voix sénégalais yi moo ko indi fii c'est pas compliqué affaire bi du mbedd mi du sànnante xeer maa ngi dégg ñu naan ay guerre civile ak ay yu ma xamul lool yëpp mi ngi jóge si gémmiñu Alioune Tine Alioune Tine moom ndeysaan dem jox ko ñu jox ko Pastef rek ka dese tax am na ko sax parce que à l'échelle internationale moo koy defal maillage waaye doo nekk naa fekk dafa alerté njiit doo nekk naa fekk dafa artu nguddakan mi doon wax loolu mu artu ngudda mbuub mi doon wax astafurlaa du nguddakan ngudda mbuub mi doon wax hmm. ma nga ne gis nga la mu yore ca Pastef ñoom ñëpp ay bukki la ñuy yu muuroo deru bay clair comme loo de roche seen intention na xam nañ ko waaye fii la ñuy fekk sénégalais yi ndax ba sénégalais yi di jóg ndax ñoom dootul léegi de te ñoom taxul woon circonstance moo taxoon hmm. ndax boobu covid bi dañu leen tëj situation na xam nañ ñu demee xale yi ñuy ànd ak ñoom nag dafa am lu ma leen laaj. ñu dem ci employabilité des jeunes dem ci ANPEJ. Hmm. dem si FONGIP FONSIS uti lu ñu leen jox ñu liggéey moo ëpp rendement ñu ànd ak kii nga xam ne da leen di reylu ak naan leen bu ngeen dee seen day jur avertissement amu fi. ah li xam nga lan mooy wax bi. Hmm. président Macky Sall na si yéen ay responsable yu doon président Macky Sall waa ak ragalam rek parce que ragal moom ci deret la dañ na ragal boo takkee bët sax xel ma mooy tulli ak ñi nga xam ne dañu ragal. waaye ñun li ñuy wax ñun jigéen ñun plateforme femme 4 benn bokk yaakaar majorité présidentielle mu suñu ragal xalaat xalaatuñu ragal te dañuy ànd ak suñu président mun ci nii ak ci naa ragal lu ñu am lu ñuy ragal amuñu lu ñuy seet parce que nit bu dee dangay defaan dara te nga gëm ko instant bu ne da ngay jóg di ko défendre circonstance bi tax nga daw na bëtu dañ ko dañu maye woon njekk nag gis nga boobu noonu chef religieux yi ñuy saaga nii tey nii te mu xeeb leen ñoo leen sauvé ñoom te bu méttee mu ne jóg leen ñoo ñoo ko sauvé moom ah yéen sauvé ñoom ñëpp seen nguur la ñu gis nga ñun suñu nguur dara du ko tax a yong yànq xam nga dara du ko dara tax a yànq war ci mbedd bi nga foog mbedd en mars ñoom demuñu pale de kenn hmm. laaluñu dara manifestation lañ doon def di raaxaalaale si biir yu ci am yu ci amul indi nit ñi nga xamante ni bëgguñu lu baax gis nga ki doon tiire Auchan bi dem taxaw def nii tiire à bout portant tëbalkat naa ne xale yi ko leen nga war a xamante ne am na lu ci rax waaye la woon woon na maa doon moom mu ne sàtt dem defi test ADN am buñ ko woowee ci nguur mu dem wuy ji bàyyi mortal combat bu bu élection jotee mu dem uti parrainage am bu parrainage jotee mu dem déposé bu ñu valider candidature am muy jàmm muy nu muus mu wasin ku ko romb mu xosi la ku mu romb xosi la fi mu ne pareegul ak Adji Sarr lokk na Mame Mbaye Niang ñu pare policier ba ca Ziguinchor tam ko doon reylu ndax moom loolu la xam pensée unique la xam looloo fii jeex fii kenn que yàlla dafa def nit ñoo toog ne patt jàpp seen njàmbur te ñooñu maa ngi leen di interpeller sénégalais yi bu ñu soq ak bu ñu bojj du benn président Macky Sall mii macha allah ku ko jàpp jàpp nga gor ku ko jàpp jàpp nga jullit ku ko jàpp jàpp nga ku fonk jigéen ku ko jàpp jàpp nga ku fonk diine ku ko jàpp jàpp nga ku fonk Sénégal gi un vrai patriote bu nga xamante ne day def lépp lu mu war a def. ak diine ak yaru. te boolewul dara ak wax. gannaaw euh, problème mu candidature Macky président Macky Sall ca Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar aussi war na am beneen beneen contradiction interne bu mu war a lijjanti mooy mm. Idrissa Seck. ñun démocratie euh, chaque jour euh, pare chaque semaine ñu dégg ko mu def déclaration boo xam ni xaw na tey xel mel ni ku bëgg nekk président loolu est-ce que du. ça ne fait pas désordre. seen mouvance présidentielle lu gën a moom lu gën a neex sax déclaré na candidature am wax ji jeex. wax na ko barka démb bu mu wootee. waaw bon. waaw xam nga moom nee na ah, dafa nuancé déglu ma rek ma wax la rek moo tax waxam pour interpréter a jafe démocratie président Macky Sall vrai la. waaye nag démocratie ne veut pas dire anarchie. il faut la part su mu nekk nii yaa ngi gis ku nekk di tallax tallaxe ku périllé taxaw rek na man candidat laa. Ah, taxaw rek na candidat respiration démocratique la loolu. waaw ma ne ma ne anarchie bi nañ ko ci moytu loolu laa wax man damay alerter ku mu neex nekkal candidat waaye sénégalais yi seen bopp am nañ seen bët. am nañ seen nopp ah xam nañ ki leen nekkal ci naaj ba ngir ñu am li ñu war a am muy Dakar muy région yi muy fépp kenn ku nekk li nga war a def daa nga xam te xam nañ ne le candidat idéal ki nga xamante ni moo war a mën a continuer Sénégal fii mu toll nii soril ko xale bi nga xam ne dafa yore allumette pour taal gaz bi ne dañ ko fiy wax pour taal pétrole bi fi nekk biñ ne dañ ko fiy def Macky Sall c'est le candidat idéal de Idrissa Seck bu nekkee candidat loolu ça ne fait pas désordre. déranger wuñu. wala est-ce que du trahison sax. déranger wuñu am droit. c'est un sax bu la neexoon nga ni candidat nga kan moo ciy wax. yow kay wax bi mooy buñ la nee parrainel demal déposer valider sa candidature nga am ko daa amee plus de 35 ans rek war nga war a mën a dem postuler def sa parrainage def sa lépp ñëw toog mais def ko dans les normes def ko ci teggin def ko ci yar def ko ci orma. def ko ci respect sénégalais yi respect ci respect jigéen ñi parce que nous nous sommes des femmes bi mu naan ku jur ku ku ku dee sa yaay jur xamul ni juróom-ñeenti weer maa xàllaa ni mu demee la boo fonkul jigéen fonkoo fi nga jóge sa normal que doo traité benn jigéen correctement ndax juróom-ñeenti weer kenn mënu koo faj benn fan bëgg laa yóbbu àllaaxira président Macky Sall moom tëral jigéen la fi ne mi ngi ñuy financé mi ngi euh, euh, comment dirais-je euh, teg loxoom. ci césarienne mi ngi teg mi ngi teg loxoom ci hmm? fistule yi. comprendre nga. xale yi nit ñi di faju gratuitement. 0,5 ans mi ngi nii ci àll ba dem li mu santaane woon lay wër nii di ko xool et c'est très normal apprécié. et ça foofu la ñu woo mënuñu def diabolisation parce que ñun waaye ñun xam naa ñun kon ñun ñun ñoo ko ne demal Touba ñun ñoo ko ni demal toj lu seen champ ba.